مرادي وكب من أنكر باعترادي بران الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكرا الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا إماده ولا تنازع ولا شماتة أعطاني الباخل كتابا أعظما ولا ألاخي كل من تعزما عني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسأل خالدا nafaani bil mustafa al musafai alaytani maahu nafaan lan fai daa xilaamiya ilaa sukuuri man saqara lil xalqa baqa izaaman rabbi ya maaliki xaliili wal xabiib wa xad maa anniya daa'iya tabiib برأني من كل عيب ومراد وخاد لي صحة في كل عراد بريت من عيوب نفسي بالتجاء إلا الذي أبوابه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم muhammadul wasilati wa junnati an kulli sooin waasan wa jannati yanqaadu minni ya salaamu an salaa lahu bi alihi wa afdalil malaa rasuluna ahmadu kulli alaa alayhi xayru salawaatil alaa suntu lahu أبكار أم داه لدى من جهل سأني وسف الخلدا قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي وجه لي حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين نفعني فيما مدى وما اختفى wa kawnu li bi munaaya maxtafa nafaani bi ma bada wa maxtafa wa kawnu li bi munaaya maxtafa faritu billahi alkarimi wa rasul wa xisbi wa xustu minhu xay rasul man la Ndongo Ngom dëkk mbuur ñu gën maa xam ci Ndongo Mayib Ngom jànkatu xasida ñu ngi bàyyi ko Mbour waaw lu tax ñu teew fi rek mooy liggéey seen tuwaa rek ndaxte yàgg nañ fi ñëw te saa su ne ñu ngi ñëw ndax ñun bunt bu ñu féete muy waa ko Cheikh Ahmadou Dieng mooy waajuru Soxna Xadi Dieng muy waajuru sëñ sa sëñ Cheikh Saliou bu jigéen di waajuru sëñ Sidi Mbacke mu Landang nga xam ne suñu sëriñ si Abdourahmane Mbacke ibnu sëñ Sidi ak sëñ Cheikh ay doomu yaay doomu bàjjen lañ nga xam na saa su ne dañ fi ànd di fi ñëw di liggéeyal sëñ Tuubaa si waaram wii ji lagan waaye itam di sàkku ngërëmal suñu borom ndaxte isil muridu laa yurid abada xayru rahmaani xaysu asada la sëñ Tuubaa waxoon loolu rek moo ñu fi indi ñaan suñu borom suñu borom nangul ñu ko te yàggal fi sëriñ bi ñu yàgg ko mu yàgg ko woote lool ñu yàgg ko fekk si barke sëñ Tuubaa Mamadou Mbodj maa ngi jógee diwaanu Thiès fu ñuy wax Mbodjeen xanaa fas yéenee jëfee ndigalu sëñ bi rek te maanaam jamono bi fi mu toll loolu liggéeyal sëñ bi dafay desul rawat na sunu gaynde gi nag di sëriñ seexum sëñ saaliw nga xam ne lépp lu ko bàyyam doon nëral ma nga ca sax ca dàkk ca amu ca benn yokkat te ñu am gëm-gëm ni buñ ko toppee ànd ak moom ci loolu dinañ ànd ak moom ba am ngërmu sëriñ tubaa te ngërmul sëriñ tubaa mooy ngërmul suñu borom ndax diina la digle ak julli ak liggéey Serigne si amul lenn lu mu sopp mbaa lu mu bëgg lu dul jàng julli liggéey ci la nekk loolu nag lañ ko nawee ci loolu lañuy ñu moom incha allah sax ci dàkk fas yéene wéy ak moom rek ba fam ñu jëmee ca yàlla. man maa ngi tudd yi Jógay Ñëng soppeeb sëñ Saaliw man maa ngi bàyyi ko Njaareem Njaareem waaw. xanaa ñëw ci liggéeyab sëñ Saliou bi rek waaw di ñaan ñëpp am jàmm sëñ Saliou yàlla nañu ko sunu boroom feyal ndax lii lépp mooma bëgg ñu jariñu rek moo tax mu dal di nuy ubbil lii naroon nanoo dund ba dee te duñ liggéeyal sëñ Touba te kon dañuy perte alhamdulilahi rabil alamina min taseeg sëñ Saliou mu ubbil nu yoon mi yal na yàlla yokki leeram taas ñu ci barke bi xanaa ñëpp am jàmm rek Sénégal gépp am jàmm àddina bi yëpp am jàmm suñu borom yokk leeri sëñ Saliou ak sëñ maas Ñing moom sëñ Saliou Mbacké. Mm, daa raxmaan jenn dëkk si Abdou Latif jenn déedéet damaa liggéey si wut si lu baax <laughs> waaw ah sàkkum ngërëm rek xam nga lu baax moom yombut surtout nag <laughs> ñu woote tool yi sëriñ Saliou ñu ñëw si ngóob mi nii ñëw ne fas yéene nag liggéey ba dee dëgg yàlla jëf jël la rek. waaw. xanaa nag gudd fan a wér gi yaram ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke borom ay gu neex yi mu yàgg fi lool ci ànd ak wér mbàkke sëñ Tuubaa di leen ñaanal yéen tamit kenn amul seen fay. gone yi comme ñoo ko bàyyi ba meeg si fii bu la neexoon mën nañ ko àggale góob mais comme que dafa bëgg a jëriñ nit ñi rek nit ñi bu ñuy ñëw wàllu yi lu jëpp ci ñoom jëriñ nit ñi moo leen tax a jóg loolu moo tax ñu woote lii xam naa ku nga xamee noonu nag boo ñëwee da ngay góorgóor rek pasteefu ma bàyyi lépp ñëw ndax amuñu lu may sëñ Bàmba di ñaan yàlla nag yàgg koo def ay déwén déwén di siyaare eh, sëñ Cheikh Saliou Mbacke borom jàppandal borom doo faa nag lagan moom rek la ñuy bëggee di ñaanal sëñ Rijaal fan wu gudd tam yàgg fi loolu te wér ndax de nun ay jumtuwaayam rek lañ yoo xam ne saa su déggee liggéeyub sëñ bi rek xamee wuñ bu fi nekkee bu fi nekku dañuy jóg takk sun suñ digg rek fas yéene cee nekk ba jeex. Mohamed Doumbia la. ñu ngi bàyyi ko ah teewaay bi de ñaar ko waral. bi ci njëkk mooy euh, sëñ bi dafa woote woon euh, ubbite juma lagan loolu bokkoon na ci teewaay bi loolu démb la woon la ko ñaareel mooy liggéey tool yi nga xam ne naa nag euh, at wu ne sëñ bi daf ci boole waa Touba parcelle loolu tamit moo waral teewaay bi fii ñaar yooyu ñoo waraloon teewaay bi moom kay du ma yem ci waa parcelle Sénégal gi yëpp laa ko yéen ak àddina sépp rawatina Sénégal jàmm ak salaam ci barke liggéey bi waaw lépp li nga xam ne namm nañ ko ci réew mi saa borom defal ñu ko lépp li nga xam ne xaadim rasul nammal nañ ko réew ñaanal nañu ko saa borom defal ñu ko waaw loolu moom am nañu yaa yaakaar ne liggéey bi attan na ko moom kay Pastef rek Pastef rek la ñuy yëg amul coono amul dara waaw loolu daal liggéey bi daal macha allah ñu sant yàlla bu baax a baax waaw amuñu lenn loo xam ne lu dul mbégte waaw li ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy yëg ci liggéey bi waaw ak aajo gu faju waa Habibou Ndiaye. Habibou ko. yoonu KMR. ah yoonu ah, tedd ki rek mm-hmm. Serigne Saliou. waaw ndaxte moom daanaka liggéeyal ko suñu njariñ la. Mm-hmm. waaw ndaxte tamit nit moom bu la fàggulee loo xamante ne nii ah, mënoo ko am mu fàggul la ko kooku nga liggéeyal ko warteef la ci yow. liggéeyal ko mooy suñu njariñ daal moo ñu tax a ñëw fii ci tool di ko di di ko liggéeyal daal waaw. di sàkku di sàkku di sàkku di sàkku daal waaw muy ku ki Serigne Saliou waaw di fasaaleel ñëpp képp ku fi képp ku fi bëggoon a teew am amoon yéene teew fi te teewoo fi rek ñu ngi lay fasaaleel lépp luñ fi jëlee ci aw yiw yàlla nañ ko suñ borom yàlla nañ ko suñ borom boole ci barke Serigne Saliou ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal ñëpp képp ku bëggoon a teew te teewoo tamit bu déwénee yàlla na teew ñi fi teew ren tamit yàlla yàlla bu kenn manqué fii déwén ñëpp mën a teewaat barke Touba Mbul. waaw. Ah, fii de liggéeyal sëñ Touba rek kanu fi indi man nag yàgg naa fi ndax fi la fii laa yaroo ci mbul keel gi jamono yi fay laa ne xàmmi liggéey bi njàppandal lañu ko sëñ sëñ bi doon sante lu nekk njàppandal di ko fa def di bàcc loola nag moo dox ba yàlla dogal ñu woote xel koom man nag demoon naa fa ay yoon loolee woote sëñ Saliou ba tey jii moo fi nekk rek ñu ti ñu fas yéene liggéeyal suñ li feeg nuy nekk kaw suuf fas yéene jëfi sëñ Saaliw yi yàlla di ko wéyal ba àdduna tukki akramani alkarimu wal mukarrimu wa bil mukarrami ataani alkaramu xayru jamiil aalamiina ahmadu xaamiduna mahmuduna muhammadu wajalil amaana duna xawfi baax kafaani mujibaati alxawfi farixtu billaahi alladi ammanani min kulli shooyin abadan bilminani alayya man lallahu bitaamini wa tahara alqalba min attaxmini liya yaquudu llahu bilmaai nabi ma la yaraahu ahadun fi dunubi يقودنا الأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزال الماء عنيت عن سيف وعن أرماه واجاني السفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لي دمنا البشير في الصفاء من كدر وجاد في الصفاء أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أدل وعن سبيل الله لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه يقود للمنى بلا أقدار في هذه الدار وتلك الدار حزن الذي مدى لغير سرفا وكوني العبد الخديم عرفا زان عبادتي وزان قدمي صفاء كلي بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن ورباه وجي سوء توجه للباخي وليقود مطلب السباخي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيع والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دون تفسير والتحديث ساق لي المنزل خير الذكر وكان للباخي بخير مكر تسليم من كان بالأعراد على بسيط سيد فالو مباكي كوي سباب رب سيخنا مباكي سيخنا مباكي من Afe. waaw yaa ngi ci daara ji. waaw looy jàng. alxuraan incha allah kii toog nu mu tudd. Serigne Sarr. foo ko xamee. si daara ji. lu mu fiy def. liggéeyal ci yéen nag. ak ñun. lu mu leen di defal. xanaa ah. dana fi ñëw lu bari. waaw. allah. sëñ bi jógal tax. kii nga wan ginnaaw comme doon. sëñ Simeer Sarr. ah. sëñ Simeer. sëñ waaw. foo ko xamee. ci daara ji. ci daara ji. waaw kañ nga gis. yàgg na de. ah kañ la fi ñëw ngóob nga góob wala. loolu ñoom góob mi ko ak njab bu ñu ak lépp rek nu mu leen hmm? ak xéewal. koy ñaanal mu yàgg fi te mu yàgg fi loolu te wér. Ah. te yi gën a yokk. te affaire yi xéewal di gën a yokk. waaw. di ñaanale sunu sang ba Serigne Saliou sunu borom dolli ko ay leer te taas ñu ci barkeel te yàggal fii sangam bi sëriñ Cheikh Salih sunu borom dëgëral ko te wéral ko di sant bu baax a baax ñëpp rek mbokki daara ji yëpp baax yoo xam ne noonu nga ko waxee rek suñu sam yelmoom kenn ku ne xam na ab taxawaayam ci daara ji ci bu xew-xew amee ak bu xew-xew amut ci taxawaay bu wér a wér boo xam ne donga yëpp mën nañ koo seere muy mag muy ndaw te lool lu wér wér la kenn ku ne mën na koo seere ci sant bu baax di ko sant di ko ñaanal mu yàgg te wér lool sunu borom kartanal ku ba yéene ji mu am ci liggéeyal Sëñ Tuubaa sunu borom defal ko ci lu kawe njort barke Sëñ bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabil alamin euh, gannaaw ñu ngi nuyu ñëpp di tàmbali suñu nuyu si xalif général de Mouride sëñ Muntaxa euh, ñu yeesal suñu nuyoo si sëriñ Cheikh Saliou suñu kilifa suñu sëriñ di sant sëñ Saliou Mbacke bu baax a baax a baax chaque année dëgg la dinañ ñëw ngóob te moom moom ñii ñoom ñoo ko moom. ndongo yi. ndongo yi ñoo ko moom parce que Serigne Cheikh dafa leen tabaxal benn juma euh, te nee nañu euh, démb comme noo ko gisee ñoom ñëpp dañoo sol sol sol bu rafet ne daal ñun jëwrin yi ñu ne seen bës la euh, soo gisee mooy tàmm di ñëw di waxtaan ak ñoom c'est ñun ñëpp ay ndong daara lañu te dafa am tey ñu ñu ñu mag rek gisoo am na benn am na ku toog sa gannaaw nii am na keneen mais ñun ñëpp ay ndongo daara lañ te dañuy ñaan yàlla cest diir dire xam-xam ñoom bu ñu am fii ñu fi jëlee ak li ñu fi sëriñ bi eh, jàngal ak sëriñ bi lu mu leen tàmmal euh, muy muy muy muy muy muy continuer euh, gone yi nag ñun day xam nga rek suñu sëriñ ba sang ba moom rek la xam. jàngal gone yi ak jàngal leen sol leen ay jikko yu rafet te ñii nag man ñuy ñooy sama xarit su ma ñëwee fii damay kontaan di leen gis borom ñaari montre yi borom borom kii xam nga da ngay gis façon bu nekk. façon bu ñoom ñëpp daal koo si gis am na lu si sëñ bi def si ñoom te ñun cofeel boobu la ñu si ñoom moo tax toujours damay ñëw toog waxtaan ak ñoom seet seen bébët mais ñoom nag. seen sëñ Xalil moom toujours dañuy jokkoo di xam si lu ñu nekk ndax wante manqué ñu dara parce que moom soo gisee yeesalal nañ leen seen seen seen seen daara bi bu baax baax a baax si ndigalu sëñ Cheikh Saliou nga xam ne fonk parce que sëñ sëñ Cheikh dafa fonk dafa fonk daara bi parce que euh, sëñ Saliou si boppam dafa fonkoon daara bi moo tax ñun ñu fonk ñun mii nga xam ne ay jëwriñ lañ fi ñu fonk daara bi xam nga yenn waxu waxu biir néeg ak waxu ronlal doo ko ko wax doo ko wax si ku la tàllal micro mais gën a yi war nañoo xam ne fii moom place bi euh, sëñ Touba euh, suñu kilifa bi moom moo ko tànnal boppam si tànnal ko boppam euh, si si jox ndigal sëriñ Issa Diène donc suñu mënee soo remonté histoire bi ba xam lu tax tey ñu toog fi gën a toog fi ñëpp toog fi sëñ Cheikh fonk fonk fonk euh, daara bi nga xam ne euh, dafa am histoire. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ana lan ngay yëkkati sa kàddu démb bi nga xam ne sëriñ bi joxoon na leen liggéey liggéeyu jumaa ji nga dem ba njëkko julli démb ban yëg-yëg nga am. xanaa di ko santate rek. sëñ di santati sëñ Cheikh Saliou di ko santati di ko sant di dolli sant sëñ Cheikh Saliou euh, ñun moom taalibe yi dañ dañu am bégte si sëñ si Cheikh Saliou soo toogee ak moom ngay waxtaan ak moom lu nekk la xam lu nekk la xam wante lu rawatina euh, yëfu diine ak lislaam su la si waxee nag ak bëgg nag xale yi euh, moo tax euh, démb ba ñu ubbee jumaa ji te ñun ñu waxoon ko ne ah xam naa ne daal seen bésu xale yi la mu kontaan si lool mu kontaan si lool jox ñu ndigal fii fii sax lañu fanaan ñun mi nga xam ne Euh, ànd ak dongo yi mais kontaan nañ vraiment parce que li li ñu sant rek moom te ñu yegg si rek ñu ànd ak moom li may li may tàmm di wax ñeneen ñi rek euh, sëñ Cheikh euh, dafa doon liggéey bu rëy mais moom TGV la TGV bi maanaam day jëkki ralentir soo yéegee rek nga ànd ak moom dem. Mhm. su mais moom day continuer liggéeyu sëñ Saliou rek moo tax ñuy ànd ak moom am ànd bégte liggéey ak moom ak sama yeneen sama yeneen jëwriñ yi. yi nga xam ne euh, euh, da ñëpp a ngi si jàpp ñëpp a ngi si jàpp ñu ngi sant ñëpp nag sant yéen ñi journaliste yi nga xam ne euh, ñëw ngeen teew mbir bi man te sant tamit taalibe yi ñëw barkeelu si liggéey bi soo gisee dañuy oote sëñ bi en fait dafa bëgg yaatal barkeel bi ñun rek mënoon nañ ko def wante sëñ sëñ Cheikh si tàmbale sëñ sëñ Saliou toujours dañuy dañuy namm yeneen jullit yi ñëw barkeelu si liggéey bi euh, def comme ñun moo tax ñu see sant te <clears throat> euh, luñ siy gis rek mooy ñun yokk rek yokkute yokk ak yokkute lañ si gis fustu bi kawni laayni wa wa kawni loo bi bi jaay xayral kawni وعين كل مسلم ومسلمة ولا ولا في درهم من ظلمات ci tuuru sunu sëriñ sunu jawriñ sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba liggéeyub lislaam ak liggéeyub diine bii mu doon ne ci waajuram sunu boroom defal ko taw feex mu àggale ko te àggal te nun di ndokkeel ñëpp nag tey sant tey yëg sëriñ bi bu baax nag ci woote bi nga xam ne sëriñ bi woote woon na ko mu jëm ci yàlla rek ak sëriñ bi te ñu woy si ko loolu nañ ci sant yàlla bu baax te di ci jaajëfal mbokki jullit ñëpp ak mbokki taalibe di leen ci eh, ndokkeel bu baax a baax a baax loolu nga waxit it eh, bala maa dugg ci sunu mbokk daara mii nu ñu jàkkaar lool dafa am lu am solo loo jiital muy démb dañ doon julli juma tey ñuy góob di liggéey te loola mooy diine mooy al ibadatu wal xidma liggéey dafa mënta ñàkk ci diine mënta ñàkk ci yoonu murit jaamu yàlla dafa mënta ñàkk ci diine mënta ñàkk ci yoonu murit sëriñ Saalihu yàlla na ko yàlla fayal dafa mas a wax ne dafa am tuut tànk boo xam ne dafa wattu woon alxuraan ñu indil ko sëriñ tubaa jébbal ko sëriñ bi jox ko kaamilub alxuraan jox ko jiwu gerte ak saafu kafe ak dollub xasida ne ko ginnaaw wattu nga alxuraan kaamil bi ba fajar jotee bala ngaa julli na nga ci jàng fukki isib boo demee ba jant bi fenk jiw wi bu yàlla si tawee na nga dem jiw ko saa boo jàngee ci fajar ga ba noppi dem ci tool yi liggéey boo ñëwee saafu kafe gi bu la yàlla wërsëgalee kafe nga saaf ko de tey naan dollub xasida bii nga di ci jàng xasida ne ko ak murit nag génnut yii kon ak murit mooy jaamu yàlla ak liggéey loolu la sëriñ bi doon woote démb ak tey kon ci loolu rek lañ lañ nekkoon ci gàttal nag sunu mbokk daara mii duñ wax ne daa wuy si woote sëriñ bi dañ naan daa dellu si ci wooteeb sëriñ bi ndax waxtu wu ne mi ngi ànd ak ñun jëf yi ak nos yi ak yéene yi bu nekkee Ndakaaru it mel na ne mi ngi nekk Lagan loolu man am naa ci lu ma leer ne xolam ak xelam ak jëfam du jub mukk ci daara ji lii day lu fees loo xam ne murid yëpp dañuy daje ñëw di ko di ko fi gis <coughs> waaye li muy def ci suuf loolu moo gën a rëy mm-hmm. te loolu wa ma shahidna illa bi ma alimna ak wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu dit bu jëfee des na ko sant des na ko ñaanal waaye lam jëfee des na ko feeñal mm-hmm. loolu lépp nag Serigne Saliou képp a tax mu di ko jëf moom mi dama koy wax ne bëgg Serigne Saliou euh, def na ko waaye moom tànn Serigne Saliou Serigne Saliou moo ko tànn mm-hmm. ndax indiwut boppam sëriñ Saliou ko xëcc te loolu wax yu xóor la li muy wax xam naa ko moom xam na ko sëriñ Saliou mi tax xam na ko sëriñ Saliou moo ko xëccal boppam bi ko sëriñ Saliou xëccee ba mu ñëwit soxlaawut la dem feneen garaat bu mu mën a yor ci àdduna doon taalibe sëriñ Saliou ko daqal te nag euh, macha allah yàlla ko yàlla dool taw tawfeex daraja ju nit di am ci àdduna am na ko xam-xam bu nit di amit xam na ko waaye ak taalibe rek ko ñor bu ñëwee lagan ab lay bëgg a doon noog moom mu gën noo doon ab taalibe ba am na kilifa am nga ko yàpp da naan moom donga daara la daan ne sallaahu mën naa yalwaani ni ni donga yi di def ndax ndax ak wayefam may na ko loolu kon nag loolu ñu di ko ñaanal sunu borom dool li ko tawfeex di ko santal it nag mbokk yi wuy si ñëpp ndax ñëpp sëriñ bee sëriñ bee leen yëkkati waaye moom ku sëriñ bi yëkkati ku ne mu dexe ne la ngay def moom mu la ko defal nuy itam foofu rek lan dugg kon noon gi jaajëfal ñëpp rek waaw Serigne Saliou day day nit koo xam ne ay mbiram da koy làq ci baatin waaye nag léeg-léeg day dimbali nit ci zahir ba kooko tudd lu tax baatin ba war a génn moom mi def na ko sa daara ji ñuy wax lagan day sax na ma lool mu ne kon ne a damaa defe ne sëb cëre waaw dégg na lam ko lam ko doon juñu nag dégg na ko nitu yàlla da lay yéene dara waaye da lay defal tawfeex yow lam la lam fa mu bëgg nga jëm mu teel la faa orienté bu boo jógee foofa ngay teg sa tànk looloo ko dimbali. ci mën naa joxe wala lu am lënt waaye li ñaq eh, yi murid yi ñaq ci naaj wi fi mu ne dara lu ci lu ci sellut amul ñaq moom amul triché mhm. moo tax eh, sëriñ bi loolu loolu mu bàyyi woon ko xel bu baax a baax ci soob nit ñi ci ci liggéey loolu nga wax it ne day dem ba ci nga daan fay-fay defar dafa am eh, système buñ koy defee nit ki boo ko bëggee defar da nga koy da nga tuuti ci àdduna ba mu wéet ndax mooy tax la nga bëgg a def nga def ko ci moom waaye ku jaaxasoo nit ñi rek loo ciy def nit ñi mën nañ la ko nañ la ko dindil la de loolu Serigne Saliou mi ngi ko roy ci eh, waajuram Cheikhul Khadim fu mu masaa sañ ci bu dëkk ba yegg see ba riir ma bari mu dem ci feneen looloo taxoon tuuxu tuuxu yu bari moo tax daara yi du ko def ciy dëkk fu dara néewul lay dem fàkk fa nekk fàkkum njabootam di liggéey tey jaamu yàlla ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xamante ne nii mooy xalifa général Mouride di teg Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacké di rakkam di jëwriñam ci fànn bu nekk di nuyu mbokki taalibe yi fi dage yëpp di nuyu sëriñ Xalil mi nga xamante ne nii mooy jëwriñi daaray Lagan di nuyu Alaaji Samuel Sarr mi nga xamante ne nii tamit moom la sëriñ Saaliwu sédde woon daaray Lagan te sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saaliwu ñëw yeesalaat ko yokk ko taaral ko sëriñ Saaliwu Jaxate ak sëñ Balla Jaxate ak mbokki taalibe yëpp sëñ Minikaar kenn manqué wuñ sëñ Omar Gueye ñëpp teew nañu sëñ Xalil daanaka bi mu waxee ba noppi kenn amatul loo ci teg ndax li ñu war a wax yëpp wax na ko li ñu war a leeral yëpp leeral na ko waaye xanaa dañuy sant rek sant gi nag li ci jiitu mooy sant suñu borom ndax liñ liñ ko waxee démb li njëkkoon mooy dañ doon ubbi néegu bi yàlla boo xamante ne nii tamit barab bu ñor sëñ bi la doon tamit jumaa jàkka ju ko ñoroon ba mu tey mu doon jumaa ba sëñ bi santaane démb ci xutba bi ne ngi ñaan ñi nga xamante ni dëkk nañ ci tund wi képp koo xam na sa digganteeg jumaa ji dafa mat matul ñeenti kilomètre ngay ñëw fii di julli si jëf jooju nag bu amee sëriñ Seex Mbacke digal ko taalibeem di rakkam di Alaaji Samuel Sarr mu jëf ko nam ko bëggee ba jëf ci nu kawe njortam dafa delloo buum ca boy boy ba ndax Samuel moom kenn ku nekk xam na ne alali sëriñ saaliwu ndax ba mu àndeek sëriñ saaliwu ba mujj koo gis fekk am na ngërëmam mënoon naa wax ne man kat am naa ngërëmal sëriñ Saliou di doxee lu ko neex di doxee sagoom waaye dafa feddile laxasaayam mel ni amutoon dara mal sëriñ seex Saliou di wut ci moom lu baax di wut ci moom sëriñ bi ba sëriñ bi ràññee loolu ba téyel ko boppam xam ne kii kat liggéeykat bu mel ni moom gunge ko yombul waaye kii day bu ànd moom dina ko gunge ndax sëriñ Cheikh moom kenn ku ne xam na ne toppewul nit alal toppewul nit àdduna ndax moom adduna da ko wan ginnaaw alal amu gi soxla ndax kenn ku ne gis naa fa muy dugal alalam dundal doomu aadama yi ak def ko ci néegu yàlla kon ku jàpp rek suñ borom moo tax mu jàppale ak jikkoom loolu nag sëñ Samuel Sarr mii sëñ Saliou da ko defoon ci moom ndax sëñ Saliou tamit da daan jël ci responsabilité Samuel yoo xam ne da koy wan ne maa la yilif ndax daaray lagan ji courant bi fi nekk nii booba courant yombewul ci réew mi nii mu yombe ndax ay kilomètres yu bëree bari la waaye moom la sëñ Saliou digal mu indi fi courant bi ba leeral tund bi yëpp. dotation bi te loolu kon xam nga ne duy caaxaan. sëriñ Saliou tamit bari na mbir moo xamante ni daraa xew ci mbir daanaka da ciy maana waaye mbiri Samuel moom da koo defal mbiram li may wax ni sëñ Saliou Jaxate mat na ki seere sax bu amee bu ko leeree ne uh, am na am fal nañ ko daanaka mm, mbirum remaniement ba laaj ba noppi na ci moom daal cërëb Samuel daal yitteeloon na ko. am na bis boo xamante ni dañ koo fal muy war a ñëw di jël service nga xam ne dañ na ko bis sangam ngay jëm sa bureau ba mu waxee sëñ bi loolu gis ma bëriwuma sëñ bi lu mu koy def sëñ bi ne ko déedéet bis boobu bu ko dem ca bureau ba jàppal ko bisu boppam nga xam ne dafa dàq passation ba ba bés bi ko sëñ Saliou jox mu dem ca te boobaa wéy nga xam ne kon loolu moom sëñ Saliou da koo defan ni boppam kon nag loolu nag moom bi fi sëñ Saliou jógee tamit lim laxasaayoo topp sëriñ Cheikh njaboot sëñ Saliou gépp cër boobu la leen jox bët boobu la di xool dongay sëñ Saliou yi mag ak ndaw kenn ku ne boo ko dëppee micro mën na laa seeral ci samel loo xam ne digganteem moom lay doon da koy jëf te du ko wax kon nag kooku kenn ku ne xam na ne moom li muy def yàllaa tax ak sëriñ bi waaye sëriñ bi muy jëfal am nag fay ñemewul bor waaye dafa am ak fay mbokki dongay ndaw yi nga xamante ne mooy seen mag di leen jëfal bu ñu amagutuk fay tamit am nañu ñaan te seenu ñaan day dana koy déglu te danay fekk ci lam bëgg kon bokk moom xelam war naa dal kon boog ñun bokki taalibe yëpp Samuel mi royuwaay la jëwriñ la waaye royuwaay la ndax li ko sëñ euh, Xalil waxee mënan naa jël mbubum darajay àddunaam waaye loolu da ko teg fële ak taalibe rek ko saf bu ñëwee fii ci daara ji dongay sax ñoo ko gën a euh, lim lim lim mën a wéyee sax dongay mënuñ ko wéyee kon bokk Samuel ci turu sëñ Seexum sëñ Saaliw mi nga xamante ni tamit maanaam moom dafa bàyyi lépp wan àdduna ginnaaw li baayam bëggoon rek la bëgg te baayam it la maamam bëggoon rek la bëgg mooy dundal lislaam dundal lislaam nag weesuwul jël ay ndaw di leen yar di def ci ñoom xam-xam yoral leen seen lépp di def ci ñoom jikko ju rafet di def ci ñoom nangoo liggéey di def ci ñoom ay citoyens yu yoo xamante ne nii bu ñu jógee fii dara muy àddina du am lu may sabat ci ñoom ba pare nag mu def ko ci ni jamono ji mettee léegi ndax fi mu nekk ni àddina bi dafa doon benn bunt gëndaloo waaye nag sëñ Cheikh ba léegi ak njabootam àddina ak saytaane amagul ci ñoom yoon loolu nag kenn ku ne xam ne liggéey bu rëy la kon boo si ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum di ñaan ñu teewe kay at yu bëree bëri mbokki taalibe yi fi teew yëpp tamit yal na suñu borom motali seen i yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ragal péete mën naa tax ba nit ñàkk lam amoon banaa ñépp tey faf mooy ci buumu borom Touba jaloore yi borom Touba xanaa rëy ga na leen da ko nettalil boppam ku mën tey na moom Touba fa wallaahi ànd ak yow bisub piñ ci doy na lay ku juuyoog sëriñ Tuuba du gis gaay jëm Tuuba bu ni xoon borom Tuuba ku di nga torox fasaa sa kët yërmandeem jaa tax nde kon kenn du dem Touba rëy yi jëf te wit ca dawoo jaaxle woo xanaa menn mbubbum ndam mi am yaa ko sol Touba waxoo naa bu dul kon diw samay mbir du jëm kanam danga jéggi mbindéef yépp lee tax nga am Touba mosoo daw ngirub saay sax

di ay njabootam ak mboolem jëriñ yi kàddu yi nag ñu ko sëriñ bi tënkee gàtt na lool waaye buñ ko saraa mën nañ ko jee paraan kon ñu ñaan sëriñ Touba mu dimbali nu ba làmmiñ wi mën a jot li kàddu yooyu danañ ci lot lool waaye yal nañ defal taw yëpp te bu jógee ci làmmiñ ñu xol yi dégg ko lool sëriñ bi nee ñu leen di nuyu te di leen mooy cant gi itam mu ne cant gi itam du mat a guddal ndax ki tax ñu sant mu ngi ne jàkk ak bëtam dina xool mu ne ñi ñëw ak ñi ñu fekk ak moom ñoo bokk benn pas-pas te mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa nee na pas-pas boobu nag yàlla na ko sëriñ bi sàmmal te sellalal na ko ci barke Cheikh Xadim te moom mi taxoon ñuy liggéey te mu ne jàkk dina xool yàlla na fayal boppam ci barke Serigne Saliou kon Serigne baa ngi ni ko baax tey sant di sant itam kilifa yi nga xam ne yónnee woon na ci ñoom te ñoom ñëpp ñu teew ngir jàppale ko ci liggéey Serigne Touba bii nee na kilifa yooyu yëpp mi ngi leen di sant bu baax a baax di sant itam mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom itam buy si nañu ànd ak kilifa yooyee di ñaan Serigne Touba mu nangul leen seen liggéey di sant bu baax di sant bu baax di gërëm it ñi nga xam ne ñoom ñëpp taxaw nañ ci liggéey bi ñii seen i doole ñii seen i xalaat ñii seen i alal ñii seen i jot ñoom ñëpp Serigne Ba di sant di leen ñaanal Serigne Touba mu ci beral nag ak cant taalibe bii di taalibe Serigne Saliou mi ngi nii toog ci taay bi mu ngi fu nga xam ne li muy daj ci liggéey bi ak li muy daj ci lëgal ngir Serigne kon mi ngi koy ñaanal tey sàkku taalibe yëpp ñu ñaanal ko tey sàkku taalibe yëpp itam ñu ñaanalante suñu biir mu doon taalibe suñu Tuubaa ba faaw te seetaane ba ñu fëkk bànneex ba ñu fëkk ba ñu fëkk sëriñ baa ngi sant bu baax mi ngi sant bu baax bu sëriñ bi santee rek nag daanaka wax ji jërëtu saraa lépp day daal di mat na te mi ngi ñaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon fi xaar ñaanal ñu léegi. sunu ko gaaw xatum wam sa léegi gis nañ tayam di gàccee li démbam renam dàq daaw ña daa takk njàngal koy jéema lor ndaxam seeni jeexit saxul lépp saaw ñasam pooni foote kadaa nas lu bon amuñ ndam laaluñ lañuy jéema laaw dañoo mbëkk ciw doj ba seen bopp toj ñu yoñ seen mbir wasaani pitaaw bañam yépp jiim nañ mu des fii bérëx mbiram jëm kanam seeni mbir jëm gannaaw ñadaa tëf li ci wëñ di xancak di fas badam dillu seeñe palem seeni xaaw ñadaa wër di daanak di rangoy tëndën azal tey bëggoon nañ di buurub jaxaaw koy wayal te deeti fendal ba bañ ma ngaaw mburu mu yàlla maa ngi te maa koy wayal te duma deeti fendal ba bañ ma ngaaw donoy Mustafa ngi tadib xaadimam te moo bagaanu ku di baaw ña doon baaw ba waamee waameem walee kiinu nañ bu leen gantu waameem nangul kokkuma yam te jiital ko kon leeg nu mel ni njanaaw